ci Excel bi. si si da ngay yow créer ay pages. waaw yaay créer page ñoom page yi dañ ko limité. si si en ah, créant loolu concerné wu cas boobu ça nous ne nous effectivement ma ñëw ma ñëw. li nga lay damay ñëw yow li nga wax sànq. Mm-hmm. en créant les autres pages. justement tu peux avoir problèmes. Mm. parce que ñoom xamuloo ñoom ñun ni ñu créer ñoom seen page yooyu. Mm-hmm. loolu informatique dafa dafa sew c'est-à-dire que c'est pourquoi je disais que le logiciel mmh. et puis la matière électorale est une matière consensuelle mmh. code électoral bi c'est consensuel yëpp mmh. donc pourquoi informatique bi euh, logiciel bi du consensuel donc ñoom acteurs politiques yi ñoo waroon exiger ànd ak seen ay technicien ñu jël jeu d'essai def jeu ñu jox ay nit ñu dem def parrainage indi ñu essayer avant débattre sur les questions. mais doyen est-ce que ce n'est pas possible aussi que conseil constitutionnel acceptel candidat yi ci ñoom itam ñu andi seen i eh, ingénieur informatique. quand ça euh, ci ci ci vérification yi ci contrôle yi. parce que aujourd'hui celui qui est devant le logiciel bi éliminé ak di validé. Ah. mais kooku mooy kan. attention ak kan la. le conseil constitutionnel dans la décision. oui bi mu jël pour wax nan lay contrôler def na ko ci. nee na mandataires yi bu ñuy ñëw mën nañu ànd ak seen technicien. donc ça a été le cas de c'est un data analyst. oui loolu mooy liggéeyam c'est un informaticien mooy sama mandataire. Mhm. te laaj na leen ba ñu transformé fichier mu ne leen mais li ngeen def nii. day am ay erreur. waa ji ne ko waa ji faalewu faalewu ko sax. parce que bu ko laajee bu ñu gisee erreur effectivement les caractères ak les espaces les espaces mu leen erreur bi est ce que du si yéen uh-huh. mais faalewuñu ko sax donc après euh, président conseil constitutionnel dafa ni dafa demandé informaticien wu euh, commission bi parce uh-huh. que le fichier est waa ji ni ko non le fichier n'est pas exploitable mu ni ko kon jóg ngeen dem voilà c'est ça loolu xam nga en fait je pense que su fekkee <laughs> dañu bëgg organiser élection bu mm. transparente inclusive dans ce pays il gàcce la et puis tamit taqal suñu démocratie la parce que Sénégal yi bu nekk tey am nga droit jóg nga ni dangay ngay ba baatu askan ak comme mënti doon ci tu as les moyens et qui avoir yéen ñi ñu xamul nag yéen nag yéen ñi yéen a tax non mais euh, ñu mel ni waa Gëm Sa Bopp wala ñu mel ni docteur Abdourahmane Diouf wala réew mi ñu ne ah yéen a bëgg xajamal cere ji parce que yéen pour ñu ñi identifier leen yombul te une élection présidentielle c'est le entre un homme avec son peuple. après tout yéen ñu ci bëri si yéen man day wax dëgg yàlla man maa ngi lay doog a gis maa ngi doog a dégg sa tur en tant que candidat à la présidence. Mohamed nan la wax ñaata émission laa fi def. non non man dama ne personnellement non damay expliquer damay expliquer man sénégalais aussi. non non damay war a dem waaw ma yeggali sama question donc man personnellement sama kaa laay wax. <laughs> léegi nag yéen it wax dëgg yàlla dafa mel ni yéen yéen a indi sa mbaxloo bi am ba gaa yi nga xam ne ràññee nañ leen au moins ñi xam nañu ne am nañu projet de société comme gëm sa bopp avec leur livre tekki docteur Abdourahmane Diouf Thierno Alassane Sall yéen tey jii ngeen ñëw ne dañ leen a recalé et justement alors que population bi sax suñu defoon sondage xamuñu leen yéen. waa léegi ma ñëw ci loolu. ma hmm. àddu ci très très rapidement je pense que sénégalais yi tey war nañu aussi comme euh, tey avancée technologique am na. suñu déggee benn tur war nañu mën a dem gëstu ci internet bi lu facile la tey man soo ma soo tapé sama fa Mouhamadou Fadel Koné di nga xam man may kan ci jaar jaar. un ingénieur génie civil diplômé de la haute école spécialisée de Suisse occidentale. bàyyee ko fa 2006 def comme sama maam Cheikh Anta Diop ñëw dellu si réew mi. di liggéey dans le développement di accompagner la jeunesse di créer ay cadres d'insertion ay cadres de discussion avec les jeunes. ëbbi fële ca Kër Massar benn complexe boo xam ne damay former ay jeunes. dans la pâtisserie et la boulangerie. dégg nga parce que j'étais ancien de la Sonatel. man maa piloté travaux siège de la Sonatel bi nga xam ni batiment bu yanj bi nekk si VDN def hôtel Terrou-Bi def aussi projet assemblée nationale du Bénin. récemment donc. Euh, c'est pas que def nga non def lu def lu bëri. def nga non def lu bëri retour du Sénégal on a formé des centaines. Hmm. accompagné aussi euh, des centaines de femmes dans le Sénégal. bëri na te tey ñooñu tey ñoo ñëw waaxu si andul ñu parrainage ñu traité ko liggéey yaakaar ni mën nañu ci dem depuis législative ñoo ngi liggéey ci loolu ànd si ay mouvement yu bëri yu am doole mm. ci mel na UDC union de développement de la Casamance UDN tout ça y a beaucoup d' associations et xam ne lëkkaloo te nit yi xam nañu peut être yow soo ñu xamul aussi aussi da ngay dem gëstu tey te permets nga dem gëstu xool man may kan loolu boobu moo war mm. il faut xam ñun ñu dénk seen destinée c' pas que man nekkuma ci plateau yi di fësal que je n'ai pas les compétences non mm. il s'agit pas de ça mm. il s'agit d'aller vers l'information xam tey ñi ñu war a dénk réew parce que ñun on veut amener un changement comment à travers le civisme et la citoyenneté fexe xool nu ñuy tëggaatee suñu éducation nationale. fexe xool nu ñuy fexe aussi ba. propagande bi à partir à partir de la petite enfance damay expliquer. ñu ngi ñu ngi ci pré campagne aussi à partir de la petite enfance. gisul benn problème. non mais ah. <laughs> ma yem ko ma yem ko rek mooy euh, access la access nañu nañu bokk. acteur du civisme et de la citoyenneté pour l' du Sénégal maa ngi bàyyi nag. Euh, euh, ñi nga xam ni mooy téléspectateurs yi ñu dem. tapé xool Mouhamadou Fadel Koné. léegi ñu ñëwaat ci doyen Mouhamed ak problème mu. dépôt di euh, parrainage yi euh, est-ce que suspicion du gën a bëri ci nit ñi su fekkee ne parti majorité comme Benno demuñu ci parrainage citoyen ñu dem parrainage des élus PDS dem parrainage des élus Khalifa dem parrainage des élus même Sonko voulait aller avec le parrainage des élus muy supposé grand parti Bien au moment où ñoom monsieur Konek comme sa bopp Abdourahmane Diouf ak ñeneen ak ñeneen ñu dem di obligé dem ci parrainage citoyen tout à fait non sa question bi elle est vraiment pertinente xajal sa micro euh, parce que boo li ko li li indi suspicion bi sax mooy que boo gisee jalo politique bi nga jël lim yi ñu jël ci député mooy mm-hmm. muy ñaari parti wala ñett ñoo ko am. xanaa mm-hmm. ñett wala ñeent. c'est ça. Euh, Pastef fa ko amoon. PDS ak euh, PDS. ak APR. Mm-hmm. Euh, ak taxawu. waaw mu mel ne donc. dañu ko calculer sur mesure. boo jëlee euh, euh, les chefs d'exécutifs locaux cent vingt yi. Euh, daanaka presque kenn moo ko am. benn rek ko ko am. voilà donc loolu effectivement et puis comme c'est optionnel. suñ ko fa bàyyi woon ñoom jël citoyen bi. suspicion boobu da am. mais ñoom ñëpp ñu bàyyi fa. citoyen bi comme yàq bu naqari. ça veut dire que xam nañ la ca nekk. la preuve d'ancien premier ministre. <laughs> doyen lu ci nekk. ci nekk. li ci nekk mooy que c'est un système qui est euh, euh, euh piégé au départ. bu wóorul daal. oui c'est euh, pourquoi la CEDEAO a été très Absolument. lucide que le système de parrainage il faut le changer qui waxul Sénégal doit abandonner le parrainage. dafay mm-hmm. il doit changer le système mm-hmm. ngay dem di jëli yow les fiches de parrainage en tant que candidat. foofu noonu ci boppam lañ la waroon spécifier ndax citoyen ngay def wala kii. Euh, optionnel voilà dès le départ. mais da ngay ñëw jël lépp. xëccoo fële ba pare. jël fii jël fii def dem def yëpp. léegi yow boo demee ba xam ne cóol na nga xam ne eh, citoyen cóol na nga ne xaaral ma dugal ci kii ensuite loolu yëpp foofu la doyen. foofu ah, loolu du ah, système foofu ensuite ensuite. Ah? xam nga parrainage. Mhm. xam nga culture démocratique. Mhm. comme on dit les élections c'est une fête. Mhm. oui si je le cas de la France. quand Marine Le Pen n'a pas eu suffisamment parce que foofu il faut 500 élus. pour pour pour se présenter. Marine Le Pen ak ni tol toll yëpp. mu nekk en difficulté. c'est Macron qui a demandé à la droite. waaw nañ ko dimbalee pour mu matal. mais ça veut dire ça c'est fair play. démocratie loolu la war nekk. effectivement. mais duñ la jug jéem a dugal ci pax. parce que li ñuy am ni c'est ça à ça sa ça ressemble. parce que comme vous dites même ñii nga xam ne pas ñii sax mais les les les Bougane et autres là. Mhm. qui sont euh, je crois 27 ou 20. qui doivent aller au deuxième tour. 22 ils sont 23 il y a il y a des journalistes qui ñu ne ma euh, mais est-ce que day am beneen tirage au sort. Mm. wala est-ce que seen rang yu ñu amoon la ñuy jël. parce que amoon na requête bu Abdourahmane Diouf dugal. pour mu amaat beneen tirage. en fait voilà mm-hmm. alors et ensuite euh, est-ce que doublon yi nekkoon ci machine bi.